mais aussi euh, nuyu population bi leen masa waaw monsieur le maire tey euh, laata ñuy waxtaanee ci li nga xam ne moo jëm ci gox bi émission bi euh, gis nañ situation bi nga xam ni déjà moom la Sénégal di nekk di dund. Mhm. dafa mel ni jafe-jafe yi bari na lu ko waral mooy procès Ousmane Sonko aji Sarr lan moo ci sa xalaat bu njëkk. merci beaucoup xam nga affaire procès bi. Euh, dafa nekk situation boo xamante ne vraiment lu métti la parce que bi situation bi amee diggante Adji Sarr ak euh, Sonko ah man personnellement fekkuma ko te yàlla xam na xam nga suñu réew mi moom bu dara amee moom commentaire day bare et d'autre moo tax euh, damay moytu ci lu bari ci wàllu procès boobu parce que d'abord maîtrise ma secteur juridiction bi. mais li ma xam mooy euh, vraiment bu problème amee jërul ñu koy politiser euh, man c'est vrai ci mouvance présidentielle la bokk mais très sincèrement euh, maa ngi lancé appel jeunes yi ak ñëpp pour moytu problème bu amee ci biir kër yi wala ci mbedd yi def ko problème boo xam ne problème politique le diggante njiiti réew mi ak keneen ki xëy na dans les mën na bañ a def loolu sax. mais nit loolu lañ xalaat te il faudrait que ñu def ci attention parce que affaire procès yi euh, dafa dugg ba pare ba biir famille ba biir kër yi donc euh, loolu moo tax dañu ko war moytu te bu ñu koy analyser nañu def ci analyse bu objective parce que euh, très sincèrement man moom li li ñuy vivre nii en ce neexul kenn parce que ñun dañu jure ci jàmm yar ak teggin bu njëkk sax daan lii day am sax léeg-léeg sax dañuy suturale dañuy def lépp pour ñu lijjant boobu pour mu bañ a feeñ am na ñoo xam ne sax léeg def bu ñu engrossé fii sax di def suturale boobu te jamono bu nekk ni sutur amul jamono bu nekk ni da ngay gis ne nga ne di moom affaire neexuma wala nga ciy opposé institution noonu la quoi loolu moo tax vraiment euh, man procès bi. ci biiru fond commentaire bi duma ko def mais li ma mën a def mooy commenter fu mu jógee nañu moytu kenn ko ne fi nga toll fii moom fii laa bëgg a teg sama papa daan wax bi ma doon commencé jàngale maa ngi doon dem Fuuta àll wu rek mu ne ma euh, yaa ngi ni dem mais sooy sàcc da ngay dem fu sori boo sàccee bu ñu la dàqee di nga xam fu ngay dugg loolu moom lu am solo la ci doomu adama c'est surtout que vraiment nu ñëpp ay politiciens la ñoon dañu def ñu politique pour xeex nit ñi def ñu politique pour pour yàqal nit def ñu politique pour defar suñu gox yi pour defar suñu site yi voilà pour jàppale suñu mbokk yi nga xam ne dañuy def difficulté defal tali defal éducation bu baax loolu moo tax ñu def politique mais bu ñu defee bonne pol instant moom situation bi tey bu yeggee fii euh, responsabilité yi ku nekk mel na ni moom moo ko war a gàddu bu ñu demee ba ñu naan euh, fukki nit ak lu topp génn nañ àdduna ci ab problème bi nga xam ni ñenn ñi dañu jàpp ni ab injustice bu tegu ci aw benn responsable politique la euh, li ni mel c'est regrettable dafa mel ni oui moi je pense que yaakaar naa ne bu ñuy def balance bi c'est c'est partagé ah les responsabilités quand même sont vraiment partagées quoi loolu il faut reconnaître ko parce que xam nga politicien moom que boor bu ne ah lu lay lu la arrangé moom ngay topp <laughs> lu lay arrangé moom ngay topp mais léegi na li am solo mooy dañuy xoolaale peuple bi dañu xoolale suñu ñun d'abord suñu bopp d'abord balaa ñuy def ay projection parce que man de maa ngi jàllee famille ñi nga xamante ne seen doom yi dañoo génn àdduna di leen jaale di leen masa coono am ñeen yàlla euh, vraiment tul seen kaw parce que euh, boo nekkee ci réew doo ñaan li am même nguur bi nekk président bi sax ñaanul lii am bon maintenant il faut que nguur xam naa ne su kanamee certainement dina jël ay responsabilité am vraiment pour def lumière bi ci ñi nga xamante ne dañuy génn àdduna parce que bakkan doomu adama dafa fort quoi bon contexte bu ñu nekk aussi kenn ku ne da nga def retenue loolu lu am solo la il ñu def retenue euh, Serigne euh, Abdallah Cissé doomu euh, alaaj de alaaj ma Mayor Cissé bu Ndar yàlla ko yàlla yërëm daana def benn xutba ci ñetti vendredi yi passé mu ne mer mer mer ndax tilmal xol kër yi warul nekk ay bàmmeel suñu dëkk bi warul nekk ay bàmmeel dañu war a baalante ñu baalante ak il faudrait que aujourd'hui euh, autorité supérieure bi nga xam ne ñun moom la ñu topp ak yeneen autorité pour opposition ñu nangu toog table waxtaan ba jubo parce que bu ñu waxtaanee ba jubo intérêt peuple intérêt population seen intérêt la intérêt ñëpp la te ñëpp la te comme président woote waxtaan il faudrait que ñu nangu toog moom waxtaan jéem a solution bi parce que violence bi régler affaire fekk violence am tôt ou tard il faut mu am résolution même dans le village boo nekk ci dëkk yi sax bu ab problème amee rek du wootante ñu waxtaan président mooy suñu président man ci moom laa faral ci moom laa àndal ñeneen aussi am na mag ñoom mais dañu war a nangu à un ma moom kenn ku ne nga teg chemise fee ñu sol chemise romb teg kilom ci kanam ñu waxtaan loolu mu am solo parce que léeg-léeg sax da ngay gis ku dee mu nekk sa mbokk <laughs> nga nekk ci pouvoir ñeneen ñi nekk opposition ñëpp bokk dee boobu nekk bokk ne boobu. donc bu ñëpp daje seen suñu xol bi dañuy sedd mais ñu toog waxtaan il faut ñu toog waxtaan te di lancer appel suñu frères yi suñu jeunes pour dal bi nañu dal euh, ñu ñu ñu balante hein ñu balante ak loolu lu am solo la. mais mais monsieur le maire yàqu-yàqu yi moom bari na am na ci yenn grande surface yi nga xam ni attaqué nañ leen euh, dafa mel ni itam. Euh, mbir mi du facteur politique rek lañ ko mën a natte itam am na beneen euh, facteur itam buñ ko mën a natte yow lan nga ci jàpp. oui oui xam nga xam nga tubaab loolu la wax ci escalade de la violence xam nga xam nga xam nga benn affaire bu ndaw léegi ci biir kër yi sax mën kër yi nekk fii ñu ba ñu dee seen loolu léegi sax léeg-léeg sax am. xoolal comme des fois léeg-léeg éleveurs yi affaire bu ndaw rek day dem ba ñuy voilà ñuy reyante ñuy gaañante seen biir escalade la quoi c'est-à-dire que loolu loolu il faudrait que vraiment euh, nit yi nañ ci bàyyi xel parce que euh, man de franchement loolu laa doon wax sama morom yi te loolu laay wax tamit population yi ma ne nañu bàyyi laqtali nañu bàyyi yàqu yi mën nga taal pneu def nii mais dem di lakk ay banque ay ay grandes surfaces yi te ay doomu Sénégal ñoo fay liggéey franchement man moom loolu mu duma ko ko duma ko concevoir je suis citoyen comme ñëpp en dehors casquette politique bi ma am mais vraiment citoyen là quoi te bëgguma quand même bu bu bëgguma quand même vraiment loolu am ci réew mi li may ñaan ci mooy ah lépp ñu dem jëm ci làkk yi yàq oto jàmbur yi ay citoyen yi nga xam ne sax dootuñu sax ci affaire bi loolu vraiment ko war a teg fële dañ ko war a teg parce que ñun loolu du suñu culture loolu du suñu aada bokkul sax suñu aada lii sax ni dalee tooy sax ba nga mer. benn kilifa jóg ñu ne ah sama mbokk de ñëw na ak sama tànk institution ah dama bëgg problème bi nga bàyyi ko waaw yaa ngi déposé plainte bi daf ñaan pour nga bàyyi boo ko xoolee nga seet yàlla sa morom jógee fay ñëw ba ci yow mu bàyyi lii da ko war a bàyyi parce que loolu mooy tax dëkkandoo neex loolu mooy tax dëkk bi neex et cetera donc euh, loolu daal ci fànn boobu vraiment euh, loolu warul am sax fii Sénégal. waaw ah, léegi monsieur le maire nan la ñu war a def léegi euh, pour mun a génn ci jafe-jafe bi nga xam ni tey moom la ñuy nekk maanaam ay piste de solution yi nga xam ni ku nekk di nga bàyyi dara ñëw dëkk bi mën a nekkaat ci jàmm mën a nokki ñi nga xam ni war a xëy liggéey dem liggéey parce que nit ñi ñu ngi dem di liggéey waaye seen xel dalul ñi nga xam ni feebar na ñu ngi dem bëgg a baju faju ji mais mënuñu dem faju ji. non non li ma li ma bëgg wax ci loolu xam naa ne il faut que quand même dañuy euh, war a lancer appel d' abord au calme et il faut que kenn ku ne nga lancer appel au calme eh, et, surtout ki ñuy war a ñaan man ci mouvance présidentielle laa bokk mais surtout ci président Ousmane Sonko moom lay waxal na lancer appel bi ci dal bi ci ay nitam eh, nañu bàyyi def ñu toog président bu ko woowee ñu toog waxtaan mais en dehors loolu je pense que euh, comme li ma la doon wax parce que nit moom dañuy wax dëgg rek gouvernement bi euh, am na liggéey bu mu a def parce que euh, dama naa benn opinion bo dañ ko war a fondé ci solidarité boobu te mu ñu permettre ñu gën a génne ci crise bi tant que teguñu solidarité suñu biir ci suñu kanam ñu mën a génne ci crise bi donc loolu moo il faut ñu impliquer jeunes yi davantage parce que jeunes boo seetee c'est pas man dama yaakaar ne problème Adji Sarr Adji Sarr mu pour def lu ñu war a def wane seen méthode bi parce que certainement dañu doon xaar euh, pour ñi am liggéey pour affaire xëy mu gën a améliorer ci réew bi est-ce que dund bi tamit euh, gouvernement bi xool lan lay jàppale population yi te nguur si mu ngi ci tànk boobu xëyu ndaw yaa ngi fi nguur si def na ay njéego ah c'est vrai que dafa des mais xam naa ne par exemple dana gën a yokk encore. Euh, pour que jeunes yi am liggéey parce que tout le problème c'est ça boo seetee boo ko xamee ñoom dañuy yaakaar ne ñii dañuy toog ci milliard di ko lekk alors que en réalité du noonu donc problème boobu am na ci loolu moo tax euh, ci impasse boobu pour ñu mën a génne ci impasse boobu il faut ñu impliquer jeunes ñu indi leen ay solution ay solution yu concret pour ñu mën vraiment en tout cas daal nguur mën a def liggéeyam opposition mën def liggéey ñeneen mën kenn ku ne nga def sa liggéey. loolu moo am importance ensuite aussi il faudrait que nit bu la koy waxtaan da nga nangu waxtaan il faut ñu accepter waxtaan léeg-léeg sax am na loo xam dañ la métti loolu sax mais boo see boo tegee intérêt ci intérêt mu ci kanam rek war nga nangu dem waxtaan man c'est pourquoi dama ne opposition radicale bi xaw ma sax xaw ma sax radicale la ñu koy tudde mais ñoom dañu war a nangu toog ak njiitu réew mi waxtaan ak ni mu métti il faut ñu toog waxtaan te ñi xam ne fii am nañ ay bàtt mu mi moo leen dox tànk boobu ci suuf pour que réew mi am dal parce que li ñuy vivre nii waruñu ko vivre président li bëgg ko man xam naa je sais que bëgg ko ak yëpp lu muy def mais wala liggéey bu mu def ci réew ay terre boo demee par exemple Casamance affaire électrification mu gën a amee te ñi lancé appel encore ñu continuer ñi xam ne dañuy nekk sur terrain pour liggéey continuer électrification bi. continuer liggéey bi indi ay l'ambassadeur bi parce que nit ñi attente la ci population yi dafa nekk attente bu am solo donc loolu loolu président jëf na ay jéego yu bëri comme par exemple boo seetee ci forage bi en cinq ans ñu am ñaari forage PUDC cinq ans ñu am ñaari forage PUDC ñu am ñuy électrifier vingt deux villages loolu am solo la donc il faudrait que ñu liggéey ci loolu gën a góorgóorlu encore mais opposition bi tamit gën a góorlu ci wàllu communication bi gën a góorgóorlu ci wàllu surtout en tout cas ndaje ak président bi loolu moom il faut mu am président su leen booyee dañuy war a nangu dem wuji président parce que suba ñoom tamit bu ñu amee nguur bu problème amee dinañ woo opposition ñoom ñëpp ñu toog waxtaan man loolu mooy je pense loolu mooy solution oui monsieur le maire léegi tey euh, ci jamono joo xam ne euh, CEDEAO Union africaine même France itam ñoom ñëpp xaatim nañ ab communauté ak communiqué ngir euh, réew mi mën a am dalandi ndax Sénégal ci loolu lañ ko xamee ci wàllum démocratie tey. Sénégal bi nga xam ni moo doon bind ay communiqué ngir yenn dëkk yi mën a am benn taxawaay gi euh, ngir euh, euh, li nga xam ne moo jëm ci fitna ñu wàññi ko tey bu ñu demee ba bind li ni mel ban jàngat nga ci am te yàggul dara président de la république Macky Sall moo nekkoon président en exercice bu Union africaine. Mhm. loolu moo xam nga loolu moom tradition la ci àdduna bi quoi <laughs> tradition la ba problème amee Guinée Bissau sax <laughs> dañuy CEDEAO day bind président Macky Sall dina jóg. ñeneen président lañ jox loolu tradition la ko loolu particularité Afrique la dafa bokk suñu aada te CEDEAO li mu bind loolu rôle boobu moom la waroon def lépp li mu bindoon ci o am la quoi su fekkee France aussi réagir na aussi bon vraiment par affinité de cœur France xam nga ni France moo colonisé woon Sénégal donc ak lu mu métti métti aussi bu problème amee Sénégal bon mu mën nañ joxe seen xalaat gouvernement bi aussi ah. dana communiquer do xalaatam ci li xew ci loolu tout ça comme ministre de l'intérieur lu mu defoon donc loolu le kenn ku ne da ngay sa partition léegi comme le professeur Jean Ziegler lu mu doon wax rek nee na yaa ta vérité j'ai ma vérité la vérité et la a ah, léegi lan la ñuy war a def mooy nañuy teg lépp ci ci dëgg am naa sama dëgg yow kii am na dëggam kii aussi am na dëggam mais nañ ko teg am benn dëgg rek ñu jàll dem problème bi yëpp euh, monsieur le maire mooy inéligibilité bi nga xam ni ñu ngi koy ruumandaat ci mbirum Ousmane Sonko ak li nga xam ni moom mooy jëm ci ñetteelu mandat bi problème bi itam dafa mel ni foofu la président de la République euh, est-ce que tey euh, ñetteelu mandat bi ban taxawaay la ci war a am comme yow responsable politique APR nga. non non xam nga xam nga affaire affaire mandat yi xam nga fii Sénégal ñun intellectuel souvent ñoo ñoo ñoo sonn waa yeneen ñi parce que les intellectuels bu ñu doon def référendum au début. début référendum bi nit wax nañ ci parce que am na loo xam ne dañ ko war a bind ci conseil bind ko y compris le mandat encore defuñu ko léegi c'est des questions de juriste sax moi je pense que question boobu nañ ko bàyyi juriste yi ñu am na conseil constitutionnel moom mu am sañ-sañ valider ou invalider candidature am le président de la république moom ba léegi waxul ndax dina présenter ou pas même si nous nous avons on lui a lancé les signaux forts pour que qu'il présente sa candidature personnellement def naa Je l'ai fait dans votre radio ici, à la télévision. J'ai dit que je suis pour la candidature du président Sall. Maintenant, le président, c'est lui l'intéressé, c'est le, le parti. moom mooy décider quand il va décider maintenant en ce moment considère que Macky na souveraineté ou pas. lan ngay wax ñi nga xam ni warul bokk dañu jàpp ni bu président Macky Sall. Euh, waxale ni day def troisième mandat. fitna mooy am oui. non en fait ñooñu seen rôle la ñuy joué mais bu amoon sax benn mandat sax <laughs> mais mën nañ toog am nañ liberté wax kii lu def sax deuxième mandat seen rôle la c'est-à-dire que c'est une façon de communiquer xam nga politique dafa am ay analyse boo xam ne politicien daf koy def ñun ci école boobu la ñuy génne école Abdoulaye Wade université libérale te dama loolu la ñu jàng bu problème économique amee nii da ngay xam li ngay analyser affaire bi pour convaincre sa auditoire pour convaincre su fekkee problème politique la am na communication bi ngay def pour convaincre sa militants yi su fekkee problème boo xamante ne wàllu agriculture la am na communication bi ngay pour convaincre sa militants yi mais c'est comme ça mais ñoom aussi ci wàllu politique dañu am seen communication ñun ñu nekk mouvance présidentielle dañu am suñu communication maintenant moi ma communication comme les professionnels yi kee am communication maintenant la communication bi <laughs> war a jiitu bi war a <laughs> kii doit être devant mais c'est de dire le droit bu fekkee dañoo tënku itam ci kaddu bi nga xam ne président de la république yëkkatu woon na ko ne du defaat li nga xam ne bii mooy euh, première wala mujjanteelu mandat am tey mu ñëwaat wax yóbbu ñu ci aspect juridique est-ce que du am parparloo itam. non xam nga tu sais les politiciens là la plupart des politiciens ñëppay communiquer yow vous le savez man bi ma doon campagne sax am na loo xam ne damay naa leen defal lii naa dem naa ba ci xam naa ne après mu xool mu seet nag lii wax ma benn politicien bu ci Sénégal boo xam ne moom wax na lii te def na ko lépp à cent pour cent amul wax ma rek benn politicien boo xam man dinaa def lii naa def lii dinaa def lii léegi sax dañuy jël mairie bi sax voilà ñii maire bi dafa détourné xaalis ñii la def ñii la def ñii la def bu ñu dem ci xam ne que kii lu détournement lii c'est-à-dire que lii la moo koy indi donc président bi effectivement bon ça c'était dans l'émotion des fois léeg-léeg nag boo nekk ci discours yi ci émotion bi ngay def je prends l'exemple en exemple bu à Sédhiou dafa ne moom le le pont de de Témento daf koy tuddee professeur Bala oui mais ça c'est dans le coup de l'émotion daf ko def ci dans le coup de l'émotion alors que peut-être que quelque part ñu ne wax consulter wu ñu parce que certainement figure la boo xam ne dafa am lu mu def ci mi lu am solo dafa am lu mu pol wàllu politique bi ah li ñu doon dimbalee jeunes yi lépp xam nañ ko donc loolu bu ñu demee ba suba ñu ne ko ah pompe dañu koy tuddee Fambaramane pont Fambaramane ñu ne waa président moo waxoon pont bala wala voilà euh, kii na kaddu bi bon c'est-à-dire que il faut que les gens se yéen APR da ngeen jàpp ni moom mooy seen candidat amu leen plan euh, A amu leen plan B euh, mais ci jamono joo xam ne euh, Khalifa Sall Karim Wade Ousmane Sonko xamuñu ban tànk la ñu war a taxawee te ñi ngi wax mbirum parrainage ak yooyu noonu yëpp est-ce que tey naruñu dem ci la nga xam ni dafa nar a indil njàqare. non en man ce que je veux li ma bëgg a wax mooy ci wàll boobu man je pense que ngi ci dialogue politique bi président comme woo na dialogue politiquement ma décision bi war boobu moom la ñu war a topp lu ñu d'accord ci dialogue bi ko te xam naa ne président ci tànk boobu la nekk man seet naa ko muy wax nekkuma wetu président nekkuma euh, ci bureau cadre yi li ñu fay décider mais bi ma déggee président di wax wax wax sa troisième mandat sama xel bi dal mu ne dañ ko dugal sax ci point yi waxtaan waxtaanee ko donc déjà def na ouverture bi loolu am solo la loolu am solo la. da jàpp ni esprit de dépassement la. mais esprit nguur mais mais c'est ce qui loolu la war a def esprit de dépassement la daf ko waroon def il doit le dire ko waxu rek dafay am ci tànge mais am dem na ba moom sax ci ko wax te moom waxul ne moom dina présenté wu d'abord ñun nañ koy xaar. yéen yéen yéen euh, Benno Bokk Yaakaar euh, lan mooy seen position kon ci dialogue bi. non je crois que man personnellement assisté ma ci dialogue bi suivre naa ko à la télé comme Sénégal yëpp dégg naa intervention yi ak ñoom Cheikh Bamba Gueye kontaan naa trop bokkuma ak ñoom parti mais seen intervention bi ñëpp kontaan président sax kontaan na ci c'est ça loolu mooy réew mi li nekk xewal il faut nga génne ko tant que génne ko dale gaañ. donc lu lu lu lu lépp képp ku wax foofu jours boobu lu nekk ci xolam noonu la génn même su fekk am na boo xam ne nit yi di ko mais au moins dañuy nekk ay nit ku xonet ay nit ku xonet la parce que li nekk seen biir xol loolu la ñuy génn bu ñëpp dégg maintenant kenn ku ne dinañ am sa pensée ñu analyser ko ci pensée boobu la ñuy teg ci kaw table génn li xam ne lu baax la ñu ñu teg ko suñu kanam pour que réew mi génn ci situation boobu. tey lan ngay xaar ci société civile bi ci ñi nga xam ne itam ñoom ñoo yor diine ji ñu jóg addu ngir dalan di mën a am parce que itam ñoom euh, seen appel dafay am solo. xam nga xam nga ñu nekk euh, chef de religieux yi euh, dama ne tout le temps moom lay wax samay morom nit bu amul kilifa rek du mu ànd ak yow nit bu amul kilifa du mu ànd ak yow jarul nga may jox sakk sa carte parce dafa am tradition bu ñu am yar bu ñu am man tey bu ma doon def ma nekk ci beneen tànk rek sama imam sa woo ma mu ne ah monsieur le maire lii ngay dugle ci def nii rek dama bëgg nga bàyyi ba ci beneen jamono mu ma ne li ak lii moo tax danaa ko bàyyi boo nekk ay nit ay kilifa bu ñu la nee bàyyil ni bàyyil bu la nee bàyyil ni a bàyyi man loolu laa mën ci wàllu kilifa yi maintenant ci wàllu société civile xam nga société civile dafa war a nekk euh, dafa war nekk même euh, balance aiguille balance bi quoi waru non dafa war nekk équidistant quoi saa li ñoom sax waruñu sax euh, à un certain moment dem ci guje politique fu ñu def seen meeting wala ñu fa dem dawru nekk équidistant jouer le rôle d'équilibre man socialisme am mooy dama ak sama attente mooy mu joué rôle d'équilibre parce que bu joué rôle d'équilibre bi wala ay farantoo ni problème rek lay indi te xam nga c'est facile kon nga man société civile la loolu dafa yomb quoi gis ko ci jamono wat bi bu buñ doon gars yi nekk fii di xeex Abdoulaye Wade gis nañ ko. société civile bi dafa am ñu fare ci opposition am ñu fare ci pouvoir bi. man man Sénégal amul société civile je le dis ouvertement non amuñu wax ma rek ñan ñooy société civile fii soit c'est ay activistes la wala ay kii yooyu ñu am seen ay jom je ne sais pas que voilà wax lu leen neex ma je ne suis pas d'accord avec ñoom Alioune Tine donc koo remarque ñoom parce que problème bi fu mu doon commencé ak léegi ñu commencé voilà non lu ñu waroon jouer au début dañ ko waroon jouer pourquoi ñoom du ñu dem gis président pourquoi. pourquoi. tamit ubbil na leen buntu. ah non mais président le président c'est un homme de dialogue xam nga tous les présidents sénégalais ab Senghor ab Diouf de dialogue le président est toujours un homme de dialogue le président il doit écouter son peuple il écoute bien son peuple xëy na peut-être mën na am sax adduna léeg sax wala man sa affaire mën mën a bañ a mën ma neex voilà tey soo wootee ma la kii moom parlement loolu dina am ci àdduna quoi mais président c'est un donc le société la bu mu war a joué mais du ay des fois ay kii non c'est pas ça non non c'est pas ça mun nañu wax président mun nañu wax opposant yi mun nañu wax ak waa benn mun nañu wax surtout aux jeune aussi il faut parler aux jeunes et cetera c'est important oui donc c'est ça le rôle qu'on mais c'est pas quand même par mais yow mën naa ko bu ñu amee problème. ki war a atte muy faral ak yow mais man du ma ko du ma ko accepté du ma ko accepté naturellement donc c'est pourquoi le rôle d'équilibre ba il faut mu jouer ko te ñu moytu souvent di enflammé parce que loolu amul solo amul solo ñun dañ xaw naa la euh, nga nangoo bañ ko nangoo fii moom dëkk tradition la. dëkk tradition la booy génne wax Sénégal dafa am tranquillité du question sax tranquillité dans le sens vrai du terme mais c'est parce que nous avons des gens intelligents, des jeunes intelligents, des, des, des très posés. Est-ce qu'on qui sont très écoutés, des hommes politiques, des personnalités fortes qui sont là aujourd'hui. Quand Alentoun va, il dit même à son corps, je vous demande de dire à des gens d'arrêter, de dire solennellement au président Macky Sall, dit qui Mais vous pensez qu'il ne sera pas s'il n'avait pas de position il va être écouté mais si tu as une position tu peux faire l'État ils vont pas t'écouter. dafay metti Famara Kalbert euh, Mané maire bu commune bu Simbandi balant moom mooy sunu gan ci émission gox bi alors monsieur le maire ñu waxtaan léegi nag ci commune bi nga xam ni tey yaa ko jiite euh, tey la nga xam ne itam moom moo jëm ci jafe-jafe président de la république Macky Sall amaloon na fa ab conseil des ministres ci diwaanu euh, Sédhiou am na li nga xam ni moom moo jëm ci seen i ay revendication ci seen i ay sàkkoteef ngir commune bi mën a génn ci ay jafe-jafe yi nga xam ni moom la nekk tey boobaak léegi ndax am na ay jéego yi nga xam ni teg nañ ko fa. oui oui c'est vrai que euh, après conseil des ministres décentralisé euh, ñun suñu biir d'abord les les maires du département toog nañu waxtaan ci visioconférence bi donc euh, def nañ évaluation ci visite présidentielle bi. Euh, gis nañ ne quand même évaluation boobu lu am lu positif la parce que déjà euh, ci wàllu euh, pont Témento bi bi ñu paree. mu nekkoon ab doléance ah. oui dafa nekkoon doléance bu majeure quand parce que loolu mooy doléance principale pour département de Goudomp moom moo nekk premier en tête donc seen na ne quand même waa Azurut bi après départ bi yónnee nañ ay mission. ñuy indi ay drone pour def reconnaissance des sites ak euh, pour les études techniques donc ñu ngi ci gouvernement bi mu ngi ci ak service yi ñi nga xam ne dañu war a toppatoo loolu ci wow pont bi léegi lu ñu xaar mooy c'est-à-dire que après départ président dafa bari na ay polémique trop parce que. ñi mooy bi. non en am na ñoo xam ne par exemple comme Diatakunda ak Bambali ñoom bon ak certains gens quoi bon man mesuré ma kan seen seen seen nombre mais am na ñoo xam ne dañu ne pour ñu def pont bi. Euh, ils font une de pont bi Diatakunda Bambal alors que Diatakunda Bambal c'est plus de trois kilomètres ci fleuve alors que là-bas c'est deux cent quatre-vingt-quatre kilomètres kilomètres et deux cent quatre-vingt-quatre mètres. donc priorité bi fële Témento la. non priorité bi Témento la c'est pourquoi groupe acteur ñëpp d'accord ñu def pont Témento parce que zone bi moom moo gën gàtt quoi voilà te foofu moo gën gàtt quoi donc pont boobu euh, vraiment bu ñu ko defee léegi ñi am vraiment en tout cas d'abord bi. mais ci wàllu transport dem ak débit dina gën a yomb euh, vraiment mun nañ jaay suñu produit Sédhiou mun nga dem hôpital Sédhiou rapidement nga ñëw voilà am na encore les risques d' la son encore euh, réduits loolu yëpp am na ci quoi voilà ñii uti papier Sédhiou ay casier judiciaire mun nga jël sa vélo da jël sa vélo jógee si Mali dem ba Sédhiou ñëwaat encore sans difficulté alors que bu pombe amul moom da ngay def une journée pour nga ak Sédhiou donc loolu lu am solo la beneen bi mooy ci wàllu courant parce que courant dafa nekkoon demande sociale bi quoi. waaw moom monsieur le nag nañ waxante dëgg Simbandi ak lu mun ak département beeg nu mu toll. tey waruñu toog fii di wax euh, courant bi euh, def na war nañ ci def jéego tey courant waroon na am ci. Euh, yenn ci localité yooyu. non non en réalité personnellement moom xam nga ne man moom c'est pas parce que dama nekk ak moo tax damay wax loo xamante ne vraiment te population boo ko man kaddu population laa yore moom laa wax nguur te président bu toog moom xam na loolu laa loolu laa koy wax xam na ko bu baax. même les service la xam nañ ko bu ma jëlee sama téléphone wala ñëw Dakar di pour lijjante bi affaire population rek laay lijjante moo a ñor donc affaire courant bi c'est vrai que amoon nañu retard man nekkoon naa ci ci ci PDS amoon nañu retard ci exécution mais ci commune bi programme nañu vingt deux villages léegi actuellement plus de la moitié des vingt deux villages yóbbu nañu fa ay poto problème bi mooy c'est-à-dire que chef bi bu nekkoon excellent moom moo desere bu mu desere woon donc difficulté ci la commencé ci entreprise bi nga xam moo gagné marché bi donc finalement pour exécution bi fallait que ñu xaar ba ñu topp toppatoo mbiram yëpp ñu soog commencé actuellement euh, entreprise baa ngi ci terrain bi ñoo ne commencé nañ ko ak PUDC bi programme PUDC bi commencé nañ ko pour def branchement yi quoi léegi pratiquement ñoo ngi def raccordement MT mais pour village yi pour sàmm nañ poteau yëpp sàmm nañ fii li li mooy MT bi bu ñu waroon. Euh, def câblage bi. léegi situation Simbandi Balante ci wàllum courant fan la toll. non actuellement xam nga dafa am programme Sénélec te programme Sénélec boobu euh, moom lañ nekk di déroulé nii actuellement ñoo ngi Senghor bu ñu paree Senghor Senghor presque pare na dañuy ñëw Jibandar Kunaya ah. bu jógee Kunaya dañuy doon Manékounda ak Madina Pël di leen dem Thiar ak Tere Mbass pour ñu électrifier leen donc ñooñu seen kii bi dafa gaaw ko waaw programme Sénélec moom dafa gaaw. ñu ngi ci terrain bi vraiment maa ngi félicité directeur général bi parce que mu ngi def liggéey bu am solo pour que vraiment ñu mën a réduire en tout cas le taux d'accès à l'électricité euh, ci ci beneen wàll bi tey euh, monsieur le maire euh, ñu ngi dem ci nawet. te ku wax nawet wax booru Goudomp si mbandi balant yoon yi yaa ngi ko doon wax sànq problème la ak euh, li nga xam ni moo jëm ci wàllum transport yi bu tawee itam ba pare ay problème rek moom mooy am ci yoon yi te ñu ngi annoncé ay chantier est-ce que du indi ay jafe-jafe tey foofu. waaw mais ban chantier ngay wax fu ñu amee ay jafe-jafe pour transport bi parce que loolu amul ya LN6 bi léegi defar nañ ko bon boo demee entre LN6 dem ba frontière ba def nañ ay piste yu bari même ci nawet yi oto yi dañuy dugg. en tout cas ci suñu biir commune o oto day dugg dem ba asumul oto day dugg dem Terembas dem ba Safaan oto day dangeen jaada Kounda dem ba fii tali bi euh, PUD kii moo ko def nu mu tudd PUDC def na jéego est-ce que vous voyez ensuite euh, Provalec aussi def na jéego ci piste si baana bi Papsan aussi def na ñaar piste de cinq kilomètres cinq kilomètres mooy jaada Kounda Jimbana ak Simbandi Balante Madina Pël MCA encore defar na beneen tali bi si mbandi ba frontière ba ndax ba frontière ba ñun de nawet bi amuñu problème transport léegi li des mooy entretien bi problème bi mooy entretien bi quoi ñu gën góorgóorlu commune bi gën góorgóorlu pour entretenir piste yi quoi. te loolu est-ce que yéen yéen ngi defar curage yi parce que caniveau yi tam. lu baax la oui si mbandi si am nañu travailleurs yi xam ne ay travailleurs ferra la donc euh, li nekk ci biir canaux yi dañ koy génne. Euh, dañ koy génne pour que. commencé ngeen ko déjà. si si commencé nañ ko commencé nañ ko ñu ngi ñu ngi ci commencé nañ ko. donc euh, foofu du ñu am problème ndox ndox bi xam nga bu tawee rek ndox bi day dem dagg ma ci dex ba ndox bi du nekk ci biir kër yi bu tawee rek ndox bi day dem di ci dex parce que dañu nekk ci pente ascendante bi voilà dañu nekk ci pente bi donc daaw def nañ fi benn canalisation en en moylon donc euh, moo tax tali bi yàqul ndox bi day dem directement ci dex ba te ndox bi daan naa dugg ci yenn kër yi. mais tey yow boo jëlee seen bi nga dem ci kër dina ne ah ñun de y' cinq ans y' trois ans bu tawee fii ndox bi day ñëw ba suñu biir kër mais bu ñu defee canalisation ba léegi ba ndox bi du jug suñu kër. monsieur le maire wallum paj mi wàllum santé sànq yaa ngi doon tudd opital euh, bu Sédhiou. Euh, tey mhm. ci commune bi ndaxam am na ay jéego yi nga xam ni yow sa ak sa équipe euh, teg ngeen ko foofu ngir mën a soulager askan wi laata ñuy jóge foofu mën a dem Sédhiou euh, tey lan mooy particularité bi ak yenn chantier moo nekk en cours ci li nga xam ni moom moo jëm ci wàllum paj mi. waaw euh, mais que ngi sant la parce que si Mbande moom am nañu sa au moins am ñett poste de santé beneen poste bi mooy poste privé bu nekk ci biir si Mbande village bi. te ci conseil des ministres décentralisé bi ci wàllu santé bi euh, programme na encore tabax benn post à Simbandi Balante deuxième poste Simbandi Balante bi ci biir Simbandi Balante dafa bokk ci programme euh, présidentiel bi tabax naa benn post tabax naa benn post au niveau de Asumul frontière ba poste de santé baa ngi foofu euh, affecté wu ñu mais depuis daaw commune bi moo signé contrat sous le contrôle du médecin chef de de goudom voilà donc signé nañ contrat euh, engagé benn infirmière te commune moo koy fay weer bu ne commune moo koy fay am nañ aussi poste de santé Safan tabax nañ poste de santé Safan bon léegi am na ay matériel bi ma dem rek foofu visité seet nañ ko fa nekk mooy il ñu changer ko donc dañuy renouveler seen plateau technique incha allah rabi defaraat quelques peintures la tout ça donc loolu moom vraiment il faut ñu def jëkk boobu le plus rapidement possible. Eh, wàllum subvention du du tardé. yàlla. waay yàlla def na ne aussi euh, vraiment Puma bi euh, président exemple ne Puma jox nañu kii benn ambulance. te ambulance boobu dañ koy bu frontière ba comme ça bu dara amee rek au lieu que ambulance bi jógee euh, Simbali dem ba foofu donc léegi ambulance moom la jógee ci frontière bi ñëw def intervention ci rn bi donc loolu tamit. vraiment euh, ñoo ngi sant waa Puma euh, li ñuy jàppale donc commune bi. subvention yi nag du tardé ci wàllum paj mi. non non actuellement euh, nguur si mettre na en place fonds de dotation yi waaw gën depuis semaine passée bi fonds de dotation bi dañ ko dañ ko positionné ak fonds de concours ni de mairie ya autorité ko contrat ñuy def seen répartition yi donc loolu moom vraiment ñu ngi sant nguur parce que li nguur doon wax ci mois de décembre ci vote budget bi suñu ministre des collectivités territoriales loolu la def lépp lu wax moom vraiment mu ngi koy def quoi franchement ñu koy sant bu wax di ko encourager encore ah ci tànk euh, bu mu jëndoon ñu ngi koy encourager boobu. te yéen yéen ñi nga xam ne yéen a dëkkee ci boor yooyu da ngeen di sàkku chaque fois ñu yokk fonds de dotation yi fonds de concours yi ak sel bi ngir ngeen mu gën a mën a suqaliku. waaw oh, xam nga xam nga transfert de fonds dafa bokk ci décentralisation bi. voilà cette décentralisation moo ko tuddee transfert de fonds concomitant des d'une des des des des tâches vers les collectivités xam nga l'état léegi waru rôle warul nekk di tabax ay salle de classe ci ci biir communes yi warul ay postes de ci biir communes yi mais dafa mettre moyen à disposition commune pour ñu mën a en tout cas def liggéey pour ñu compétence boo xam ne moom moo ko transféré pour ñu mën ko doxalee bu baax a baax donc loolu ci attente forte la woo ma tax souvent la dañuy laajte a c' est normal pour que communes yi nekk ay communes euh, vraiment compétitives viables. waaw ah, ñu ngi dem ci nawet ku ne nawet ne jàng ku ne jàng ne préparation examen ku ne jàng itam euh, la nga xam ne moom lañ war a teg foofu yëpp ngir xale yi mën a jàng ci anam gu jaar yoon tey commune bu Simbandi jéego mu ngi fay am am déet ci jamono joo xam ne euh, abri provisoire itam mel na ni lu leen xaw a sonal. waaw ah mais actuellement sax ñoo ngi ay salle de ah, boo demee bu Kaawur léegi salle de classe pare nañ pratiquement ah pare na tabax bi pare na ñu ngi tabax deux salles de classe bu ñu paree foofu dañuy dem ci dëkk bi ñuy wax Sédhiou Ndié dañ fay tabax aussi salle de classe donc euh, ñu ngi def jéego bon état aussi ak ministère de l' éducation nationale direction condition des scolaires ñu ngi def ay jéego donc loolu lu am solo la donc euh, pratiquement je pense que comme examen ñëw na préfet sax dafa convoqué la CDD pour que ñu xool lan la ñu organiser woo ci période examen bi maire yi ak directeur d'école ak inspecteurs yi. ak parents d'élèves ak comité de gestion école yi pour ñu am benn vraiment euh, pour ñu dugal suñu loxo dugalante suñu loxo pour ñu mën a examen yi mu bañ a am problème pour xale yi nga xam ne dañu leen recevoir dem ci seen dëkk ñu mettre leen dans des conditions vraiment di nga ay xale yu jógee ci yeneen dëkk ñëw foo ñu toog leen añ foo ñu toppatoo leen pour que vraiment au moins ñu am fu leen dal euh, ñu def seen examen a ñu doole ñibbi quoi loolu moom vraiment ñu koy nañu ko def incha allah rabbi abri provisoire yi kañ lay jeex. moo xam nga après provisoire bu ñu la nee tànle tànle jag vraiment loolu moom man du ma wax loo xamante ne duñu ko mun def lépp lu ñu xam mooy dañuy nekk ci planification euh, seet nañu ay école soxla ñu abri provisoire il ñu génne seen abri provisoire yi seet ko aussi école yooyu dañuy soxla ay def ay construction euh, seet nañu aussi am na ay zone boo xamante ne dañuy soxla ay clôture d'école ah soxla nañu ay école boo xamante ne dañuy soxla ay réflexion loolu yëpp identifié ko ak commission éducation bi léegi ñi nekk ci recherche de moyen bi te des fois léeg sax ñu lancé appel diaspora bi ah ñu lancé appel yi euh, ñi nga xam ne ay bonne volonté la ñu parce que l'école lu affaire du seulement mairie lu affaire état affaire communauté la donc bu ñëpp a jàppee bon communauté bi école mën na gën a avancé maintenant ñun dañuy góorgóorlu nag vraiment pour xeex abus provisoire yi soit la manière vraiment ñu ngi ci tànk boobu te incha euh, vision présidentielle boo xamante ne moom la ñuy partagé nii. ci wàllu PSE bi vraiment danañ ci góorgóorlu eh, xam naa objectif moom il faut ñu atteindre il faut que ñu atteindre objectif muy état muy collectivité territoriale ensemble Euh, monsieur le maire euh, wax ci benn ponk bi nga xam ni yéen soxal na leen wàllum sécurité lu am solo la parce que yaa ngi koy junju sànq ci frontière bi yéen da ngeen di dem ba ci frontière ba te itam ku ne Simbandi Balant da ngeen ubbeeku ci ay dëkk yu bari ci dëndu Afrique bi ci sous-région bi surtout wàllum sécurité oui mon frère ñuy sant yàlla bu baax a baax ci wàllu sécurité bi ñuy sant président de la république ñu ngi sant force de défense et sécurité te maa ngi leen rendre hommage amee palme boo xam ne dama ko jox dama koy jox force de défense et de sécurité ñi nga xam ne dañuy nekk ci biir Casamance et principalement dans la commune de Simbandi et dans le arrondissement de Djibandar muy gendarmerie le commandant la brigade de Samin muy le commandant militaire la kii à Samin à Gouram à Simbandi ci frontière boobu franchement du am mun na am sax ay sàcc ndaw loolu du ñàkk mais vraiment defoon nañ seen liggéey ñoo ngi def seen liggéey. waaw ñu ngi def seen liggéey de suma loolu moom. ak ak frontière bi ngeen nekk. voilà mais xam nga xam nga frontière bi. xam nga bi ñun dañuy nekk ci dialogue transfrontalier ak Africains Jeunes benn ONG bu nekk si ngeen ñu nekk ci frontière ba léegi dañu am ay daje ñoom maa ngi lay jox exemple ah. am na ñu doon sàcc 17 nag mais commissaire police moo dem jël nag yooyu mu woo ñu mu woo sous ñu defal ay ordre de mission ñu dem jël nag yi ak borom nag yi nga xam ne sànq benn dëkk bu nekk commune si man sànqaj yooleen seen 17 nag yi Mohamed dañ ko sàcc dañ ko sàccoon lu tax loolu ñu delloo ñu parce que dañuy def dialogue transfrontalier entre autorité administrative militaire ak civil yi dañuy def genre dialogue transfrontalier te dialogue boobu du ay bruit lañ def wala dem ci rajo yi def bruit non dialogue bi entre les territoires parce que teen benn teen bu nekk frontière warul indi division benn tool bu nekk frontière warul indi division ñi nekk foofu ñoo ñoo ñoo ñoo war a samp la paix et l'État les accompagne nous loolu la ñu comprendre dans le projet la paix ne peut venir qu'à partir des terroirs territoires c'est pourquoi on dit collectivité territoriale et c'est très important la territorialisation des politiques publiques est-ce que est-ce que mi ngi am ay mi ngi am jéego territorialisation bi ngay wax oui mais <laughs> xam nga xam nga gouvernance bi boo comprendre schéma schéma gouvernance locale boo ko comprendre ñu ngi ci biir oui oui déjà mais mais léeg côté boobu dañ fay wax ni euh, nga xam ne ñoom ñoo di éleveurs yeeg sàmmkat yi léeg-léeg problème da am ndax am na ay jéego yéen yi ngeen ci dox non non xam nga xam nga loolu euh, souvent des fois nga gis ne di wax sa doo loo xamante ne amul sax léegi di nga dégg ay information boo xamante ne c'est pas des informations très fiables xam nga éleveur ak kii euh, noo wàññeeku na xam nga ci nawet bi nit yi dañuy suñu tool kaju yi vraiment jël toolu kaju ñoo jël place di def sori que léeg-léeg nag yi duñu am fu ñuy jaar yow bokk na ci sa tool alors que nag bi àll la dafa a lekk foofu nga sam def dara foofu problème la léegi moo tax mu nawet bi doyee dañuy réglementé nati fu ñu war a jàll. ak fu ñu war a naan léeg-léeg xale yi ndaw ñi xam dañuy nekk ak seen troupeau yi nag day reer mu dem ci tool jàmbur lekk ko souvent day nekk ay problème quoi mais loolu dañ koy gérer au niveau local dañ koy gérer au niveau local y a am na ay commission de réconciliation ah nga am na ay chefs de religieux ce sont des chefs de village et chefs de coutumier ñi nga xamante ne seen njiit bu amee problème ñoom la ñuy woo ñu dem régler affaire boobu mun na nekk ci dëkk bi bu baax a baax wàññeeku na franchement wàññeeku na quoi wàññeeku na quoi wàññeeku na bu baax baax sax. alors monsieur le maire ponk bu mujj bu ñuy aborder mooy wàllum yokkute salaire yi. parce que mhm. euh, coow li bari na ministre bi nee na am na ñu yokk am na ñu yokkul. Euh, ñi nga xam ni am nañ possibilité bi ngir mun a yokk salaire u liggéeykat yi te gisoon nga grève bi nga xam ni defoon nañ ko amoon impact loolu euh, te ci jamono joo xam ne ñu ne ñoom liggéey yu bari ñoom ñoo koy daal di waaye seen salaire dafa néew yéen mairie ba yokku ngeenam euh, ñun quand même oh, ci maire de Simbandi bi amuñu problème boobu parce que xam nga ñun xam nga toujours rek man su ma cent francs su ma xam ne que cent franc lay am sama dépense bi war naa ko méngoo peut être un peu moins de cent franc parce que boo jëlee ay nit yu bëri ci service bi alors que vraiment ci masse salaire bi continué ko da ngay am problème man moo tax euh, am na yeneen recrutement sax defuñu ko am na nañ secrétaire municipal am nañu responsable euh, euh, secrétaire état civil hein donc am na ay adjoint donc euh, am na yeneen service boo xamante ne commune bi fekk soxla ko jarul recruter ngay recruter service boo xamante ne fonctionné wul et ngay fay salaire bi mais danga ngay am problème da ngay am problème c'est pourquoi nous on a préféré la rationalisation des ressources humaines c'est important donc ñun ñoo ñu fay salaire normalement te ñi nga xam ne dañuy seen salaire bi te ci ci biir salaire bi dafa fekk exactement loolu la fay. te sax ma ni ñu dem rek du ma la wax dara bon comme yeneen dañuy dégg rek a pas de ci gris salaire la bokk <laughs> bu ñu proposé te maa ngi lancé aussi appel aux collègues ah vraiment ñu ñu ñu ci gris salaire boobu même aussi organigramme bi nga xamante ne état ko def nañu xool organigramme boobu lu am solo la cabinet du maire cabinet du secrétaire ah la civile am na ci ah pour les travaux ma xool loo xamante ne. su fekkee amuloo ay kii travaux looy recruter ay kii boo xam te da nga koy fay xaalis bu bëri non c'est mais gestion léegi euh, maire bi yow tey mairie bi ni nga ko gérer foofu gestion bi ci li jëm ci wàllum transparence ban innovation nga xam ni tey indi nga fa ba gestion bi nga mun ci boole ñëpp la ngay jël comme dogal di ci boole ñëpp mais est askan wi ñu ngi ciy ànd. oui xam nga des des fois sax askan sax du ñu ànd xam nga lu tax parce que léegi da ngay gis nekk kii ko xam ne ci nekk ci bopp euh, commune bi affaire am neexu la même bu wootee réunion doo fa dem bu wootee réunion doo fa dem su wootee doo fa dem mais yow doo comprendre dara maire chaque fois bu rencontré ay jeunes bu rencontré ay couche sociale mais am da ngay def léeg sax compte rendu budgétaire bi nga ne pare man lii la am lii laa ko dépassé lii laa ko def mais da ko pour transparence c'est ça la transparence il faut rendre compte aux léegi bu ñu rendre compte au peuple il faut que les gens acceptent de venir au moment il faut dire que ñun nangu mais yow soo nangul ñëw la mais comment tu vas accepter l'autre te que fay loolu doo ko nangu si je n'écoute pas ta rajo <laughs> may lay critiquer critiquer mais li nga wax est-ce que dinaa ko dëgg yow ah c'est-à-dire que c'est des yoo xam ne ñu dañ koy am te mun dérange man ça me mais damay woote rek su ma wootee ñoom j'appelle tout le monde une dañuy def ay délibération sur les terres les gens ont commencé à crier à se manier des opposants mais problème dafa am problème terre dafa am foofu mbirum suuf wala. non non bon ñun en pré vraiment ci commune bi moom loolu dañ koy éviter xam nga nguur dafa ñu jox ndigal la pour ñu moytu ci wàllu suuf si baax voilà dañ ci moytu bu baax a baax léegi ñu lépp lu def moom dañuy consulter sous-préfet avant dinañ ko def yeneen yeneen kilifa yi ah mun nañu connaître yeneen yëpp xam ne est-ce que est-ce que ñii dinañ ànd wala du ànd bu ñu amee du ànd dañ koy bàyyi yow la problème xanaa xam na foofu la yem mais dañ koy bàyyi comme ni li fekkee ne bëgguñu li nga bëgguñu mais bàyyi lan la lan la ñu bëgg ñu wax la lu ñu bëgg nga def ko parce que noonu la d' accord alors monsieur le maire euh, daanaka waxtu bi euh, dab nañu tey ñun li nga xam ne itam moom moo jëm ci commune bi pàcc bi nga xam ni jagleel nga ko euh, li nga xam ne moo jëm ci wàllum ndaw ñi lumu mu parce que itam wax nga ko sànq kaju bi am na période yoo xam ne liggéey dafay am waaye am na période yoo xam ne liggéey nag du fa am. Mhm. non lool xam nga surtout jeunesse bi ñoo ngi góorgóorlu vraiment ci wàllu formation ak yeewu ndaw yi. parce que aujourd'hui formation moo am solo quoi parce que soo amul formation mais nan ngay il faut ñu former jeunes donc am nañu aujourd'hui opportunité bi xam état def ko def à partir des trois FPT état bi tabax na ay Sénégal service un peu partout ku bëgg def tey électricien di def électricien ku bëgg def plomberie di def plomberie ku bëgg def bâtiment di def bâtiment donc aujourd'hui dafa ay métiers yu bees xamante ne état daf ko jël en charge <coughs> donc il faut que ñu orienter jeunes yi ci loolu parce que boo defee formation di parce que gis naa léeg-léeg sax dañuy former ay boy comme électricien bu ñu génnee ñu doon leen seen matériel yëpp pour ñu a commencer liggéey di bi déggoo si xam ne dañu amal chantier am na ñoo xam ne bon bu ñu affaire formation dañu am complexe quoi boo demee par exemple à Ziguinchor di nga ay boy malien yu jógee Mali wala même à Dakar ici xam ne dañuy seen tàngana di jaay am xaalis bu bëri ils mais nous léeg-léeg seen quand baax maa ngi ci tàngana bi dafay nekk genre complexe quoi ñëw yore par ñaari sax la ñu yore ah ñett yére ñi dugg ci dëkk yi dëkk dem ci dëkk yi dëkk yi loolu loolu vraiment loolu encouragé la donc c'est-à-dire que nit dafa war a nekk autonome ni yaakaar ne des fois pour nekk fonctionnaire tout le temps moom moo war a moo lay jox kii euh, vraiment une situation et cetera alors que vraiment am nañ opportunité te loolu tamit la il faut que ñu nekk autorité politique ñi ñi ñi encadrer leen bu baax a baax bon léeg-léeg c'est pas difficile d'encadrer les parce que de dañuy am souvent des des intentions politiques bi xamante ne c'est c'est il n'y a que de la négativité là donc loolu pour ñu kii ko moo tax man damay joxe toujours conférence aux jeunes n'hésitez pas nous sommes là pour vous nous sommes là pour vous nous sommes pas là pour vous fatiguer ou pour vous faire des choses s'il y a des préoccupations si vous voulez venez on partage la porte est ouverte parce que nous ah si man ne protocole ah da dangay fëgg buntu bi maire bi recevoir la amul ay protocole. loolu am na solo am na solo. non am na amul non mais ça nous retarde daf ñuy tardel pour gis maire bi il faut nga toog ba ay minutes tam non loolu daf ñuy tardel daf ñuy tardel moo tax ñu gën a améliorer service bi ci la bokk. d' accord monsieur le maire Famara Kalbert Mané ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci nangu nangoo euh, wuy si invitation bi ñu waxtaanee li nga xam ne moo jëm ci tolluwaay réew mi ak commune bi nga xam ne tey moom nga daal di jiite lan mooy kàddu bu mujj bi. mais beaucoup euh, maa ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax euh, maa ngi woote vraiment daal ci réew mi maa ngi ñaan sama frère jeunes yi sama xarit yi sama àndandoo pour que ñu dal. maa ngi woo njiitu réew mi li euh, mu commencé bu gën a ubbeeku encore ah mu mu appel encore opposition yi pour ñu toog waxtaan loo xam ne intérêt réew mi la euh, maa ngi lancé appel aussi au F24 au groupe Y'en a marre nañ ñëpp dal nañ ñëpp a dal te lépp loo xam dafa war a dina am ñuy jóg di ko doxal. doo léeg-léeg sax du ngeen koy du ñu ko yëg mais ci wàllu fànn boobu ci fàllu fànn boobu man de euh, j'appelle au calme j'en appelle la sérénité nañ di balante ak nañ balante ak ni ñu fekk suñu réew mi bañ a nekk ay bàmmel comme le disait mon imam Abdallah Cissé ñu def kër yi kër yi dafa war a neex dëkk bi dafa war a neex àndandoo bi dafa war a neex kër yi dafa war a am jàmm kër yi dañu war a dañu war a dimbalante loolu lu am solo la man appel di sant kilifa réew mi ci président de la république dem ci kilifa diine yi ak kilifa ñu nekk ki famille bi ñu nekk ci service yi di sant ñëpp koo gis rek moom dal rek lay woote. am na solo donc aussi xale aussi buñ ne dal buñ ànd ak mer bi parce que mer bi dafay ronger d'accord ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax Famara Kalbert maane moo nekkoon suñu gan tey ci émission gox bi niki tey dimanche bi kon ñu sant ko gërëm ko bu baax a baax gërëm ki nga xam ni moom moo di euh, Léopold Mendy moom mi nga xam ni moom moo nekkoon ci xarale gi euh, jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité incha allah.